internaute de Kër Ndanane TV asalaamaaleykum ñu amaat mbégte teewaat fii tey euh, du vendredi 9 septembre fas yéene leen indil euh, seen Café Show Plus euh, comme d'habitude ma am mbégte loolu nag di jàkkaarloog samay fidèle internautes yi nga xamante ne ñoo safoo Kër Ndanane TV di ñu seetaan saa su ne waaye neenaa leen balaa may continuer rek il faut ma nuyoo ndax romb nuyoo moom yàqul mbir yi donc maa ngi nuyu kilifa diine yeex kilifa aada yëpp di leen ñaanal bu baax di sàkku si ñoom ñaan. waaye duñu fàtte ñi nga xamante ni ñoo tëdd si lalu hôpitaux yi euh, dinañ leen xool euh, ziyaar leen bu baax a baax ah, ñaanal leen yàlla yàlla fëgg seen bopp ba ñu dellu si seeni i njaboot waaye it dinañ tepp ndànk ba si prison yi fépp fu euh, prison am rek ñu ngi ñaan yàlla ñu fa nekk ah, caabi féete leen kanam ñoom it ba ñu dellu si seen i biiri kër. ah donc mu ngi noonu nee naa leen noonu laay nuyoo waaye nag si instant bi ñu taxawee nii ak ah, di ma sow ñëpp rek ñi nga xamante ni ñoo nekk si ndox mi ndox mi sonal leen lool Euh, ñu ngi leen di ma masaw bu baax a baax euh, di ñaan yàlla rek yàlla euh, defal leen jàmm ñoom ñooñu tamit waaye nee naa rek comme saa su ne niñ koy defee dinañ yëkkati baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun instant bi ñu taxaw di wax ak yéen képp ku nekk si tiis naqar mooy nga ñàkk nga ñàkk koo xamante ni ku jegeer si yow mbaa ku sës si yow it ñu la koy jaarale bu baax a baax tey nag ma ànd ak samay chroniqueur donc dama leen di daal di bàyyi ñu wax internet ñu seetaan ah Dieng Sall maa ngi lay nuyu. Mama Africa maa ngi lay doon nuyu ba yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. ah di nuyu mbokku téléspectateur yi rek ah, am internet Keur Ndanane TV la chaîne de l'élégance mais aussi di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di leen ziara tey di leen wax ni bienvenue dans votre émission Café Show tey lépp show. waaw tey du yomb. am ah, mu ngi noonu donc jeg Sall ma lay remercier bu baax a baax am mbégte loolu mm-hmm. bokk ak yow plateau bi. Mm-hmm. waaye tamit dinaa lu kaara euh, moom mi nga xamante ni moo yor rubrique invité spécial ah, di wax lu Lukaar rek noo def. moo Afrika maa ba ngeen si jàmm maa ngi sant bu baax tey nga sañse de waaw gis nga safar lañu woote waaw <laughs> safar lañu woote bos jeg saala ziar daara ak am internet ñu leen di jaajëfal euh, comme am mbégte partout à Dakar même waa diaspora bi tamit ñu ngi leen di jaajëfal moom Africa Ah, donc mi ngi noonu ah, noonu lañ nuyoowee ak sunu ah, fidèle internet yi nga xamante ni ñoo ñuy safoo di ñu seetaan saa sunu ne rek waaye nag nee naa balaa maa xuus rek il faut ma dugg si ñi nga xamante ni mooy sunu sponsor leader. Mm-hmm. ma nuyu waa partenaire épice secret donc du ma fàtte aussi au Aquaterra di nuyu aussi au régal de Kumba waaye tamit du ma fàtte boulangerie pâtisserie Le Cadior ñoom ñi ànd ak ñun durant boobu ba tey bàyyiwu benn yoon ñuy sunu sponsor leader. maa ngi leen nuyu de passage waaye nag damay daal di euh, dugg rek si actualité euh, people euh, di wax Dieng Sala que ni tey loo ñu indil. tey li ma leen indi rek que du lourd ah. xam nga chaque jour moom ak ay affaire ak fi may génn. fa trois kàllaahu macha allah. ñu am ay information yoo xamante ni fa tabarakallahu macha allah à jour la mburu mu tàng jër lay doon. waaw yu fiable <laughs> kon ni ñu koy waxee rek ah, ma commencé benn si benn tiis bu am démb si yëmbal. Mhm. muy deux morts muy deux morts yi enregistré ba ñuy taal dañ doon taal si seen groupe électrogène ak wàllum taw beeg yooyu noonu et tout ça inondation bi et tout ça. c'est la leen courant bi jàppee daal. Hmm. ndeysaan bu génn àdduna ku doon loo xam te lu diis la. métti na trop. ah di gisaale tamit ba léegi comme inondation yi mi ngi continuer di def ay ravages parce que bee paase rek même pas 4 jours am na ñaari xale. yi génn àdduna fële Cambérène. Cambérène mais aussi kon bii mooy deux yoo xamante ni wàllum inondation la. Mm-hmm. Mm-hmm. mais aussi tamit nag kon fu mu foofu mu jugee moom foofu laay jógee tamit di di di wax ni wàllum accident yi Sénégal bari na lool. lool lool. Euh, ñu ñu ñu commencé ñu ñëwaat ci wàllum accident yi rek comme que ni ñu ko gisee rek Sénégal on enregistre beaucoup d' accidents plus de quatre mille accident par an c' est trop. par an c' ah en tout cas doy na waar daal ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal ñi gën a bàyyi xel parce que tamit ay doomu aadama nañu yem accident yi moom mën naa ne des ñàkk nelaw da koy causé mm-hmm. des fois ay problème da koy causé am na ñoo xam ne dañuy génn àdduna seen biir oto si mm-hmm. dawal bi rek dañuy génn àdduna mais xam nga xam nga lu ci gën a métti mooy plus de sept cent quarante cinq morts mm-hmm. war a am waaw loolu moo ci am solo dafa am solo parce que tamit nag boo gisee plus de quatre décès par an. Mm. tamit loolu dafa bari. dafa bari dafa bari si dëkk bu mel ni Sénégal. Mm-hmm. mais aussi tamit nag ñi si di wax chauffeur yi rek ñuy bàyyi xel si tali bi. et mm-hmm. tout parce que bu ñu amee accident rek du question accident rek la ñuy am mais aussi tamit nag dañuy amaale ay perte boo xamante ne day bari plus de cent soixante milliards yoo xamante ne dañ koy perte si wàllum koom-koom ak xaalis ak et tout ça. de mm-hmm. cent soixante milliards. ñu perte ko ci ay de francs CFA. ñu ko si wàllum accident et tout ça surtout. si dëkk bu mel ni Sénégal loolu yaakaar naa c'est à déplorer moom. mais su si tamit nag ma dem ba fële rek euh, ba université. Hmm. mooy seen waa seen pàq boobu noonu ñu ni woon euh, waa nguur gi dañ ko bëggoon a jaay. Hmm. Mhm. ba étudiants jaay di ci di ci di doon ci ña doon ci kaas di si ñaxtu et tout ça. Hmm. Euh, mu am benn bonne nouvelle boo xamante ne am nañ ko parce que Macky Sall. waa rassuré na leen ne leen ba ne nañ ku si nekk na nga dellu fa nga nekkoon te it incha alhamdulilah foofu kenn du fa jaay dara. kenn du fa jaay dara mu doon une bonne nouvelle. d'accord ci nouvelle boobu de man de damay féliciter ki nga xam ne mooy président mhm. Macky Sall parce que mhm. dafa baax tamit ay ndaw bu ñu laajee dara tamit sa dëkk nga leen taxaw comme ni mu parce que pàcc mhm. boobu xam naa ne intéressé parce que yu mel noonu dafay baax tamit bu amee benn taxawaay bu si mu jiitu ci voilà kenn en même temps tamit ministre de l'éducation dañuy bàyyi xel yu mel noonu parce que tamit dëkk bi nekk na dëkk boo xam ne te soo koy jaay doo ko jaay doo ko jaay waaw dara de ku ci mel ni Dieng Saala sax nga xam ne lépp Sénégal la mais da nga koy jaay koo xamante ni ci wàllum fe foofu dañu ne dëkkuñu si dëkk bi ay tubaab nañ wala ay ay chinois ay wala ay indien en daal xam naa ne bëri na si dëkk bi de damay dégg da ngay romb sa romb benn koñ ñu ne la koñu chinois yaa ngi nii koñu chinois <laughs> bàyyi yooyu quoi. <laughs> dëkk bi ñun ñoo ko moom tamit. ñun ñoo ko moom mais aussi tamit nag euh, di wax sa Grand Théâtre mm-hmm. euh, euh, na Sénégal. Mm-hmm. mais aussi tamit nag mu doon mu amoon benn mobilisation bu am importance. bu ñëw mm-hmm. donc la coupe est à Dakar. donc bu bu nekkee Dakar moom ça veut que. coupe bi ça nous ah, ñun ñaan yàlla nag mu doon dëgg doon di am. amiin <laughs> ah ñoo ko moom nañ ko tuddee noonu rek bañ see ah. def leneen. en tout oh, xas na ba ñëw moom xam naa du génnaat Sénégal incha allah. man la dama ba ma ko gisee rek jël ko dugal sama saag rek daw laa bëggoon. ah boo dawee dañ la dàq <laughs> non yow rek moo ko de. kon kon ma siiw siiw kon ma am bës bu bës bu garaaw. Dieng Saalum boobu baa ngi yàqu de. ak boobu ngi yàqu de ji. la mu rafetee moo ma jaaxal man. taar bi nga gis taar bi moom taaru na lool taar kaar la. macha allah en tout cas daal di di di wax suñu lions yi comme ni ñu defoon ci coupe d' Afrique bi. on veut plus plus et on attend à ñoom seen jëmu mm. bopp ñu reyante. Mm-hmm. indil ñu coupe du monde parce que dañoo dañoo namaat victoire quoi en fait. non day ñëw namaat fête. parce que dara dàqul kër ndaanaan ci biir buntu palais rek. war a ah, filmer affaire yi waat encore non beneen affaire. beneen dafa war a mën a nekkaat quoi. waaw day ñëw sax incha allah ñu ngi xaar coupe bi léegi yow. non gars ñu ngi koy xaar mais aussi tamit nag euh, di waxaale gars yi rek waa kër ndaanaan TV ñu ngi waajal lu si coupe du monde mm-hmm. yi amul mm-hmm. fenn. Mm-hmm. di wax di rek. dañu toog toog seen dinañ leen garaaw. incha allah mais tamit nag ma ñëwaat ci wàllum euh, affaire internet bi ak coowal internet bi. parce que boo xoolee benn femme bu ñu naan Nabou Dash jamono yëngal na Sénégal ah en tout cas de ni ko ñepp rek ni du ko may kenn du ko bokk ak kenn man damay dégg nit ñi naan est-ce que moo jël coow wala coow lee ko topp non coow lee ko yi di mm-hmm. dañ ko war a fonk ah, te beneen mm-hmm. ku ci dugul na xamoo ko mais l'essentiel li mu ci li ci mënti am mooy que ne man sëy yi ñu jël jàpp ko di ko publier mm, mais du yàgg amul sutura sëy boo si jàpp di ko publier wala di laaj yenn somme yi da ngay rek kulli aali kenn daal laa xam ne yàlla na ko yàlla jàppale muy euh, sumbul bàcci ak ak ak ak ak Ablaye Diop xaas Ablaye Diop xaas waaw macha allah ñooñu moom ah kenn déggu leen si dara sëy bi ba pare ki li wax c'est très intéressant dañu bàyyi di laaj xaalis bu bari gi parce que am na ñoo xam ne amaguñ jabar ba léegi tax xam naa ni <laughs> tabar ba gàllaaxu un million yeeg six millions yeeg. bëgg takk rek a takk ba léegi dégg. un million dugg wax ay ay ñoom nag ah. Luka ah, ah. de xam nga ni moo tax boobu ba léegi kenn dégg la ma la ma ñawoon ba tey ma nga fa léegi mu am at. ah doy na waar de mais ceci tamit nag di joxe benn affaire bu am importance benn conseil bu am importance mooy. nañu wàññi coow li si réseaux sociaux yi te ñu dem liggéeyi. gis nga ndaw. warul teg suba ba ngoon jot. nekk si concentré wu si téléphone yi mm-hmm. c'est trop comme benn Yacine yi toog wala liggéey sëgg ci téléphone bi. mën na ko <laughs> Yacine caméra ma mu ne xaaral bu ma xool téléphone ba pare fixé nañ la. <laughs> dégg nga ak yooyu noonu yëpp tamit c'est a euh, éviter euh. téléphone dafay dafay traumatiser nit. xam <laughs> nga yaa ngi star moom parce que war ko nuyuwaale gi sax am na loo xam ne ci téléphone la moom suñu téléphone suñu téléphone yi. ah Yacine ah, ah. Yacine di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax mu doon ko baax vraiment macha allah yow jàmm ci yow ah fa tabaarakallaah macha allah mais aussi tamit di dellu ci football bi rek fa tabaarakallaah. di tëjee ko ah, waaw di tëjee foofu xam nga sunu sunu Lions yi démb nekkoon nañ si wàlluma Ligue des champions yi Mhm. mais xam nga la moom a jaaxal Liverpool dañ ko dóor 4-1 sénégalais yi mel ni Sénégal la doon fa bëri. mais c'est que nag Sadio Mané. dafa bokk garaaw Sadio Mané dafa bokk si ñun fi mu toll nii. dëgg la suñu patrimoine la dañ ko bëgg. c'est ça mais li rek mooy que ne instant bii match Liverpool boobu noonu dóor yi métti yooyu noonu est-ce que Sadio Mané waroolu ko sax. ah en tout cas de daa parce que Liverpool di boobu ba léegi moom defatul effet. ah Sadio ko yoroon moo teewoon équipe bi nag amatu ko. wolof nee na. Uh-huh. balaa ngaa xam fa dëkk neexee nga tukki. dëgg la ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee. Ah, donc da ngay bës foofu sa baaraam xam naa li ñu indi si actualité neex na lool. bu ñu ko toppee xam naa su ma suñ ko bi tàgg. ah donc mi ngi noonu ma amoon mbégte loolu recevoir Dieng Sala si sama plateau. ah donc damay bàyyi Dieng rek mu daal di nuyu wax internet yu ñu doon seetaan. ça a été un téléspectateur Kër Ndanane TV la chaîne de l'élégance mais aussi di leen kontaanee di leen bégee ah di leen wax fépp foo leen mënti toog rek yéen jàpp leen la chaîne bi moo moom moo moom moo baax moom moo wóor mais aussi moom moo fiable jàngeen jëf. Ah, comme ni ma koy waxee rek ma lay. remercier mais Louga moom bu la gisee. day bëgg day bëgg quoi parce que sunu sunu sunu sunu duo moo neex. <laughs> dafa neex mu tax booy tàggatoo rek day daal di eh, commencer sentir sa absence. am na koo xam lu kaay yor plateau da ngay rew plateau jëm ma ne ko normal ma. mbégte mi la parce que caméra bi la ko tegee. Uh-huh. li war a gili ci yow da ngaa di ree rek. jàkkaarloog lumière ah. Oh, ah, gis nga neexul. moo tax nag damay daal di dugg rek euh, si <laughs> Aquaterra ah di leen wax que ni euh, màggal gi seen ndox maa ngi nii oyof na macha allah ah buvez à votre soif ah soif du bonheur mi ngi noonu au Aquaterra. Mm-hmm. ah donc daw leen ut ko waajal si seen màggal daal di bu ko defee rek am na mm, butéel façon boo bëgg am na ci. Mm-hmm. mën nga ko dugal sax sa porte-monnaie. sa biir saak daal ànd ak moom te du la diisal waaye nag pour Touba gi. bu leen fàtte li nga xamante ni mooy bouillon euh, secret ah, nee naa saa su ne rek euh, bouillon yi dafa bëri façon am nañ bu jën am nañ bu yàpp am nañ bu ginaar ah mi ngi noonu mais maman boo xasee ba dugal sax xet gii xeeñ gii mi ngi noonu du madame ñamal na daal yii daw leen ngeen jëndi ko waaye nag nee naa seen petit déjeuner lii wa si baax li kajoor di defar muy euh, pain chocolat croissant au beurre. non ñii fi ñu jàngee garaaw na fi ñu jàngee na garaaw Hmm, gâteau coco vraiment ñoom it defar nañ ñu euh, ba mu mu baax déjà maa ngi koy savourer nii sax lukaar di réer moom dafa gis kii rek signe ma lukaar nag tamit nag c'est que lekk dafa njaayeen la <laughs> ah donc mi ngi noonu ñu dem régie mm-hmm. ah daal di daal di dellu si waat ngir màggal gu ci ayib te ànd ak tawféex Aquaterra ndox mu sell te wóor ci bëri ferñeent lool moo leen di gunge si safar gi Aquaterra si pur si léger Aquaterra disponible en format de 19 litres 10 litres 1 litre 50 60 35 et 25 centilitres Aquaterra moo leen di ñaanal màggalug jàmm ah donc mi ngi noonu may remercier waa régie bu baax a baax yéen a ko gisandoo Aquaterra euh, pub baa ngi noonu ah donc daw leen gaaw ngeen ut ko rek bu ko defee seen màggal daal di neex ma amaat mbégte en ah, recevoir sama plateau Ah, nee nañ ah, période safar lañ nekk donc safar bi dañ ko war a enjoy ah, dund ko sentir nii weeru safar lañ ne ba tax na tey suñu xel daal di dem si suñu invité bu mag invité bu spécial a koo xamante ni tey nee naa kenn du ko présenté ci àddina daal naka ñëpp xam nañ ko mm-hmm. muy Papa Wade donc moom la ñu am tey si suñu plateau Café Show Plus mm-hmm. damay daal di bàyyi Papa Wade rek mu daal di nuyu wax internet yu ñuy seetaan papa ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay fay bu baax baax sama jigéen di nuyu Lukaar. di nuyu mboolem yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel euh, seen bi di Kër Ndanane TV di leen wax ñu daal di euh, daal di abonné ci page bi nga xam ne loolu solo dañ lay jàllale. di nuyu fépp soppe nekk maa ngi baax di leen jox seen wàccuwaay di jëlee ci nuyu bi xel seen la di mooy su ma doxaar di ko fi te kàttanal ko ba lépp lu mu bëgg a liggéey suñu tubaab mu daal di yomb lool. waaw di itam ma masaw yi nga xam ne ndox mi dara na solo seen kër maa ngi leen di masaw bu baax a baax di leen ñaanal suñu borom gën a jafe-jafe donc papa ma lay remercier bu baax a baax donc mi ngi noonu ah, tey Mouride Sadikh lañ leen indi si plateau bi bu ko defee ñu enjoy ah, li nga xamante ne mooy 18 safar ndax ah, loolu lañ oote actuellement ah donc Lucas sa invité ngi nii yaa ngi noonu waxtaan leen terewul nag maa ngi ci el bi. moo <laughs> war a bërëxal rek. comme d'habitude comme d'habitude. comme ni yi nga xam ne Papa Wade moom mi nga xam ne day tagg ki nga xam ne mooy Sëñ Touba en même temps tamit day tagg yonent bi moom bàyyiwul kenn moom foo bàyyiwoo wuy ko am na muy demee sax mu sikara la nga dégg ñëpp ànd ci mbégte mais tey ñu am mbégte dalal suñu plateau euh, su nga doon suñu invité spécial suñu rubrique bi nga xam ne ne mu am ci biir Café Show euh, concernant sa carrière Papa Wade lan nga ñu ci mun a indil tuuti ci xayma par rapport à sa début carrière ba fi nga yegg si nii waaw Papa Wade moom ndaw la boo xam ne dafa opté maanaam song ci lépp li nga xam ne dafa concerné liggéey bi comme ni nga ko waxee léegi rek. Mm-hmm. maanaam polyvalent ci mboolem côté yi. Mm-hmm. loolu nag nekkoon loo xam ne lépp ba ñuy xale lañ ko bëgg. Mm-hmm. xëy na sax li tax suñu daal di am fu mu yam c'est à cause de ça. parce que dañuy guddee programme yi bëgg a jàngi. lépp rek maanaam nekkul na prétexte lu tax ñu war a mën a bàyyi jàng. waaye am loo xam ni day dem ba moom la. moom la dëgg la. waaw loolu la demee bañ nañ ko ba bu ñu daan jàngi sax ñu amee euh, nu ñu koy waxatee programme. programme dañuy dem. jàngi bëgg a ñëwaat programme xam nañu tardé. d'accord kon daal fi mu toll nii da nga tënkoon jàng bi gën a concentré wu ci yoon. waaw noonu la demee saa bu ñu nekkee école dañuy topp di jàng. ba gars yi du ñu war ñuy jàng en classe nga xam ne. Mhm. nekk nekk loo xam ne dañ koo yàgg di dund daal. d'accord kon jàngi daal ci classe yi ngeen ko jëkk tàmbalee. classe yi ñu ko tàmbalee. di yëkkati. waaw mhm. bëggoon nañoo dugg ci aar bu yàgg. Mhm. waaye comme que sa waajur bu la sant dara nañ ci def sa kéem lay donte bëgguñu ko na 100 pour cent mm. mais ndigalu waajur kenn du ko kii léegi moom mi nga xam ne nag moom ko digaloon moom woo ma ñëw mm-hmm. parce que gis na ni nit ñi meloon ci man mm-hmm. mu ne ma léegi dama lay ñaanal nga nekk ci affaire bi moom moo ko mm-hmm. ñaanal fi mu toll nii mi ngi mi ngi mi ngi sax te mi ngi wéy te gis nañ ne fi mu toll nii euh, par rapport ak inspiration yi fa lay jógee Papa Wade inspiration yi son yi muy génnee parce que te boo ci génnee rek gars yi dañ koy jël def ko seen moomeel waaw waaw waaw noonu la nga man moom guddi gi ci laay créer air parce que guddi gi moom à chaque fois bu ma tëddee tuuti damay jóg daal di insérer. Hmm. tëdd tuuti jóg daal di insérer. léegi yu ndaw yooyu ma insérer ci laay dem ba tijji ci ay son yu bëri. nga tijji ci yu bëri. mën naa ne sax yi ma yi nga xam ne génne gu ma ko moo ëpp yi nga xam ne génne na it essence nag man lu ma génnee rek mooy parce que suñu borom daf ma am loo xam daf ma ko jagleel. d'accord muy soxna ñoom samay mbir. Hmm. da leen a neex maa leen nuyu au passage. d'accord ci kaw biir soxna yooyu gis nañ ne soppe yi fi mu toll nii ñoom sa digganteeg ñoom nu mu demee noonu ak projet yi nga xam ne moom nga am actuellement waaw sama soppee maa leen di siyaar parce que ñoom lépp lu ma def ñoo koy yaatal comme ni nga ko waxee léegi. Hmm. son yu ma jéenee ñoo koy seen a partagé. Hmm. nga xam ni fi mu toll nii Omo Sène Faye waaw projet yi nekk suñ kanam moo nga laal léegi. Hmm. bëri na parce que instant bi dañoo ñu ngi waajal loo xam ni lendemain màggal bi di ñëw incha allah. ñu def benn sow Touba. d'accord. waaw maa ngi ciy jox ñëpp rendez-vous. lendemain màggal Touba bi boobu fas yéene kër ndaane fas yéene ko couvrir. mu nekk lu am solo ah la saay loolu moom narul yomb. day ci kaw loolu dañuy gis ne. fi mu toll nii eh, Luka xaaral. si hmm. kaw loolu lii lan la fi rabu ñu <laughs> dañu waxtaan may ma tuuti ba sa baaraam foofu ma ñëw. Euh, papa man fi may ñëwee yow mooy. Hmm. ah gis nañ ni daaw danga nga génne mbégte safar gi mu neex loolu ñëpp bëgg ko hmm. ren nga daal di indi sëriñ baam ba yaa ñu gënal léegi nag ñu bëggoon nga indi ñu benn apport. si diggante li nga defoon daaw ak ren fi nga génnee fu bees. waaw dawaati jéeg laa defoon mbégte safar mhm. daaw ma def mhm. mhm. ah, la gars yi ko jëlaat ci TikTok bi bi ndax ndax kii bi màggal gi jub jub la si non même bu màggal man TikTok sax boo duggee samay son gars yi ngay consommé boo xoolee samay statut ñu koy xool kon daaw chaque fois damay dugal si wóolu sa bopp daal fi mu toll nii xam nga ni papa daal mi ngi si xolu xale yi waaw xam nga man dama ñëw xool li fi lépp li ñëpp di def ma bàyyi ko fi dem indi sama yëfu bopp. ñaw léegi man Papa Wade xam naa ni nit booy way nga bëgg ko mm-hmm. dina am morceau boo xamante ne moom nga daan fowee ñëpp xamee la ko ci biir kër gi. Mm-hmm. damaa bëgg nga indil ma tuuti rek ci loolu. Mm-hmm. bu ko defee ñu fàttaliku jamono xam nga tamit loo gis souvenir da saa daan très bien yóbbul ma loolu rek. sëriñ Bamba yaa ma gën yaa gën ki gën ki ma gën. lii nangu naa ko waaye yow dongu laa ko nagul yaa gën lu ñuy bëgg a kawut yaa gën lu ñuy dox di mbébét sëriñ bamba yaa mat bëgg mat gëm yow ku la am falu di buur sëriñ bamba yaa ma gën yaa gën ki gën ki ma gën lii nangu naa ko waaye yow dongu laa ko nangul xasida yi ku ci ñam loo mën a ñam ci lem du tee nga yàbbi ni cam cafkaam gi dàq na lem xasida yi ku ci ñam la na ñam ba lem du tee nga yàbbi ni cam cafkaam gi dàq na lem loo bëgg bamba ko yor ko bëggit bamba ko yor foo bëggit bamba ko yor moo tee nga far bëgg bamba ku rëy bay ndamoo néggum ndayam baa baayam bu baax ñun ñu sew tey ndamoo seex bamba ngir moo fi xotti baax seex ibra faal moo dàq sukkar dàq lem léppam ci biir sëriñ bu maag bi la ko lem ah, dégg xam naa ni naa leer bu yàggee de. <laughs> damaa xam ne damaa xam ne de xaside oh, gii de xaw ma kañ koy kañ lañ koy jëli de waaye xaside gi boo ci bàyyee di ko def nii. Ah, da nga xam ne da nga xam ne ni ma ci mel moo tax nga may ma ko. yàlla yàlla yàlla fay yiw yàlla yàlla def baat bi gën a wér. waaw li ci bëgg tamit yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal. en tout cas damay ñëw ci par rapport rek xii nii gis nañ ne Papa Wade xii nii moom ci xii nii rek wala da ngay rajab. waaw man nag damay rajas. Mm-hmm. man lépp laay def lépp. lépp ngay def euh, Papa Wade polyvalent boobu noonu foo ko nampé en fait. waaw xam nga dara boo ci duggee da nga koy jox àq bi war. Ah. damay dem di gëstu ji fi mu toll nii bu mu la jàppale maññi rek da naan kii mën a dafa jàppale mm-hmm. seen seen jàng façon yëpp laa jàpp mm-hmm. parce que nit loo nekk lu nekk nañ ko jox ak bi war di gëstu à saa su nekk te bi mm-hmm. ndax parfois nit ñi bu la woowee programme balaa ñu lay demandé question yooyu dañ lay wax lu ñu bëgg bu ñu ñëwee loolu ngay def donc fekkee mën woo fépp kon doo mën a satisfaire ñëpp loolu te bi dégg noonu la ko ci kaw loolu lan mooy sa mbetteel ci réew fi mu toll actuellement waaw man nag fi mu toll nii moom sant bi li may may lancé mooy lu jëm ci wàllu social daal moom man dama ci insister bu baax ndax boo xoolee injustice bu am ci dëkk bi yëpp ñaax moo ko waral mm. ñaax moo tax nit di def lu mu war def loo xam ne du cëram mm. kon maa ngi woo ñëpp ñi nga xam ne mën nañu dimbal doomu aadama ñu taxaw ci loolu bu baax a baax parce que loolu ñor na ma dafa bokk ci samay projet bu ma demee ba mënal sama bopp. d'accord social ci laay dugg incha ci ci kaw social boobu noonu dañuy gis ne fi mu toll nii fa nga dëkk diwaan googu noonu gis nañu des fois def lu mel ne social. Euh, loolu noonu nan la lay dikkee ak ñen ñoo la si jàppale ñen ñoo la si taxaw ba mun nga jaarale seen tur de. waaw waaw waaw waaw man moom bu ko defee xam naa ni. bu ma bu ma limee damay jum mm-hmm. waaye maa ngi sant ñi jàpp ci carré bi ndax macha allah. Mm-hmm. macha allah macha allah dafa la teraanga te duñ wax seen tur mm. loolu dafa doy war kon maa ngi sant ñëpp en plus tamit di gën a wax waa Thiaroye yi di leen nuyu au passage di gën a wax ñu booloo mm. parce que dara bu fekkee dafa xew ci koñ mm. war ñoo xaar nguur gi parce que loolu day yàgg mais moment doguma la Ardo Ardo collection moom dafa nekk nit koo xam ne dafa bëgg euh, ki nga xam ne mooy Serigne Saliou Mbacké mais bu mu yëgee ne papa day ñëw ci plateau parce que Ardo moom ma solal nii mais bu mu yëgee ne papa day ñëw ci plateau def ne ngir jëmmi Serigne na ma ma na ma wayal ci jëmm ji ndax moom mu mën ci bëgg lan nga ñu mën a wax ci sëñ Saliou ak sëñ Fallou lim rimeel ñu ñaar yooyu ah, lan nga ñu ci mën a xaaral <laughs> bu laalee sëñ Saliou bëgg Seydou sëñ Fallou ah, ah plateau bi est-ce que dina egg ah ñaar yu mu bëgg a boole noonu ay mooy bañ internet yi di wër ah, numéro am waaw baax na pour mën a dugal addi te ñun te ñun loolu lañuy soxla internet yi mais ñoom bu ñuy dugal tamit nañ dugalaale kër naanaan suñu paasu màggal yi voilà surtout <laughs> suñu paasu màggal yi daal cofal ndànk rek allah bismillahi dongaa ngi door muslu ci seytaane mi di wër di tasu si barkeeb ci le wóor sunu sang ba maam saaliw bismillahi dongaa ngi door muslu ci seytaane mi di wër di tasu si barkeeb ci le wóor sang ba maam saaliw sa dem wi tax na xol yi di tooy saaliw boobu ba tey murit yaa ngi jooy wet daal nuy jooy di jooy sangu sangi maam saaliw li nga def ñun jom mu lool lu nay mënul bàyyit mënul jiitu ci jëmm jublu ci xol ngala bu nu fàtte maam saaliw ba tax na dañuy tëju di la jooy mbàkke yuuxu ba far xàllamaay jannaaw yi sax ñoo ngi jooy mbàkke sa jëmm ji yow sëriñ saaliw alaaji fallu moo jaay njuureel jëndeg taalube moo dori njariñ moo sanci nindi waaw di def di dindi ndeysaan kuréel mu gindi tey sañ fallu man damaaye moo bari njariñ kër Ndanane TV ah yéen lay waayal ci sëriñ fallu moo bari njariñ moo sañ nindi waaw di def di dindi ndeysaan kuréer mu gindi ay sañ fallu lu kar laay waayal moo bëri njaariñ ay ca basala di di oh, am dëkk eh, gis nga ba safar gi jeex mais ci kaw comme que moom day ñëwaat ci plateau yi kii plateau koy yóbbu ginnaaw jardin public lañ macha allah safar gi mhm. fa lañ koy tëjee nga indi xiin yeex yépp ñu ñëw taxaw ñu ñëw taxaw suñu équipe def suñuy lakos ñu daal di koy safar boobu saf Kër Ndanane TV day safar te yaa tax ñuy safar d'accord ci kaw loolu di am mbégte mën naa ne eh, foofu laay tëjee question yi ñuy am mbégte dalal la suñu plateau Papa Papa Wade di jaajëfal sa waay bi nga xam ne moo la gis nañ ne clip bi def <laughs> nañ gis ci sonn parce que bu ma bëggee jóg ngeen ma toogal mm-hmm. boo xoolee yu bëri ñoom ñoo koy matal turam bi bu baax a baax maa moom ñu bokk sëriñ fi ñu jëm ah allah macha allah maa ngi nuyu waale suñu sëriñ mm-hmm. euh, sëriñ Moutada Fallou di ñaan suñu borom yàggal ko fi mm-hmm. ak mboolem njaboot gi barke suñu Fall ah, donc mi ngi noonu nee naa li duuf si nag bi yëpp xadul xajul si cin li ba tax na nee naa Kër Ndaanaan TV nii rek lañ koy defee saa su ne événement lépp lu xew rek ñu fas yéene leen bégal mhm. ndax xam naa ni yitte woo ngeen safar gi loolu mu dugg seen xol moo tax nag lu kaar daal di dox moom it xool ki nekk seen i xol it mu indi leen ko si euh, plateau bi tegal leen ko mhm. muy Papa du ñu amoon mbégte recevoir ko bokk ak moom plateau bi donc damay bàyyi papa rek mu yoo internet yi ñu doon seetaan waaw maa ngi nuyu comme ni ma ko waxee sànq. Mhm. fépp ku soppe nekk maa ngi koy nuyu. ak ñu suivre seen bi dina wax ñu abonné bu baax a baax a baax day bàyyi xel programme bi. ndax yu mel ni yi moo fi xew ak yeneen ak yeneen. lépp loo leen soxla ci information maa ngi ziar sama yaay nga xam ni lii lépp moom moo ko waral. ati sa yaay yow kese de. waaw suñu yaay waaw suñu nga ni mbégte bi damaa jàpp. <laughs> dama ko war a wax mu tàggatoo ma ne ko noonu <laughs> yow. maa ngi commencé waat émission bi mbégte sawar gi la sama yaay bi nga xam ni lépp lépp lépp lépp moom la parce que boo xoolee début bi sama premier clip. Mm. moo yëkkati xaalis ni ma joxeel avance. xam nga kooku yokk na la doole. wallaahi sama papa tamit ñaan ñi ma ñaan fàtte ma ko. am na boo nekkee ci dara ñoom ñu lay dooleel. Mm. à chaque fois da ngay am grand fit. voilà da ngay am fit li ma nekk ragal mooy ko maa ngi ñaan suñu borom sàmm ñu nit bu baax a baax a baax. Mm-hmm. sàmmaale yéen ñëpp rek ba lépp lu ñu xam ne moom lañ mbébét pour def ko. Mm-hmm. daal di yegg di nuyu soppe yëpp. Mm-hmm. di nuyu wàccaaro yi. ak fépp soppe nekk maa ngi koy nuyu Ardo moom nga tudd. bilaay maa ngi koy nuyu au passage. Ardo collection borom ñëw yu baax yi. instant bi ngi préparé ay collection yu baax. pour pour pour pour 18 safar màggal Tuubaa gi. nekk na ñëw ci ma moom kay instant yéen ñaañee xam naa ne mu ngi ko mu ngi leen di séen rek ñaw yi dina ñëw. jeex na ardo taay baa ngi nii xool ma bu baax. ma ñëw design tamit maa ngi koy nuyu. parce que bi bokk na ci ñi mhm. ñëw ci ñi ñëw ñaw yi. fashion maa ngi koy nuyu Samblo. Mhm. Mor. clip bi dañ maa jox yére ba mu njëkk yu bëri solo solo gu ma ko. kon maa ngi sant soppe yëpp fépp mu nekk maa ngi sant taaru murit ak gars yi nekk ci TikTok bi Fadal moo tax par plateau yi fi mu toll nii yaa ngi koy toj ak ay sañ-sañ. gis nga waaw noonu rek fi mu ne moom dañoo baax. temps yi moom nga xew. ah waa gis nga ah, a xew rek xam nga moom suñu Fallu la àndal te suñu Fallu du ma sa xew yi. dëgg la comme ni nga noonu. Rufisque ou le rendez-vous de l'élégance avec bien sûr Ndiambé Diack alias Ndanane Ndiambé Diack alias Ndanane de retour à Keur Issouf Ndiambé Diack alias Ndanane attention Keur Issouf Arsenal 10 mbokk yi Tëngéej a ngoog yéen a ngoog ki bëgg Tëngéej ana ki ñëwaat indi la marque Extravaganza ci boutique bi la marque Extravaganza oui Ndanane a ngoog boutique Ndanane lépp luy prêt-à-porter hommes et femmes lépp luy prêt-à-porter en provenance d'Italie lépp luy élégance en provenance d'Italie extravaganza marque bi ñëw góor ñi di bëgg jigéen ñi di bëgg ñëpp di gën a élégant extravaganza ñambe jaak alias ndaanaana la boutique ndaanaan à Rufisque l'élégance le prêt-à-porter sac ya dàll ya robb jigéen ña wuy yaay xoolal li élégance su jigéen kese la xoolal li yëpp góor ñi bëgg jigéen ñi bëgg le prêt-à-porter ndaanaana e ñambe boo ci jàppee ndaanaan la boo ci jàppul ndaanaan la wooteel ci 77 831 82 30 77 831 82 30 ndaanaan yaay ndaanaan noonu ma am mbégte euh, di remercier ki nga xamante ni mooy Papa Wade mu fi jóge léegi waaye tamit ma amaat mbégte loolu recevoir ki nga xamante ni mooy baax Dabakh Sissoko ah di oustaz donc euh, moom it ma am euh, euh, plaisir partager mon plateau Café Show Plus ah donc damay daal di bàyyi oustaz mu daal di nuyoo internet yu ñuy seetaan ñu dellu si waat oustaz maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay alhamdulilahi rabil alamin wa salli allahumma ala xayri xalqillahi wal mursalin sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu ngi nuyu ñëpp di wax salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu aman mbégte teewaat fii ci Café Show jàkkaarloog ak Look Mama Africa ñu nuyu leen ziare leen di leen dokkeel ci safar gi ñaan yàlla yàlla ba mu nekk ci mujj safar insha allahu taala ci barke yonent bi alayhi salaam di nuyu sëriñ Muntaxa Bachir ak mbooleem jabati maam Cheikh Ahmad Bamba ku ci nekk ñu fekk la fi nga toog ne la jàpp loxo ne la asalaamaaleykum waaleykum donc oustaz ma lay remercier bu a baax am mbégte partagé yow plateau Café Show Plus mhm. euh, mi ngi noonu tey nag li ñuy waxtaane oustaz mooy farata màggal mhm. euh, bu ñu waxtaanee ci loolu tamit ñu waxtaanee lan moo waral màggal gi loolu daal yaakaar naa ni tey moom nga ñuy faram-fàcceel indi ñu ay leeral bu ko defee suñuy internet yu ñuy seetaan mën a xam li faratay màggal gi. tabaarakallaahu ma Afrika li nga laaj lu jaara laaj la. Mm. ndax dara boo ci nekkee da koy xam. xam ko dafay tax di ci duggee ak xame. lu waral màggal gi lenn la xam nga Cheikhul Khadim bàyyiwul bay dem ca làmba ji di bàkku mm-hmm. wolof dafa wax ni. dem ca làmba jay bàkku jóge ci làmba jay ko gën mhm. moom nag keroog ba ko tubaab bi oowee nga xam ne ñoo nekkoon noonu noonu mag ñoom tubaab bi mhm. euh, ba muy dem ca demam ga ca yoonam wa ca la ca la ca la ca la ca la ca lay woote màggalam gi maanaam màggal gi buñ jàpp nii dafa dem ba ñëw door ko woote mhm. waaye keroog ba muy dem la woo rek yi mu bokkal ne maa ngi dem waaye maa ngi ñëw bi mu tegee tànkam gi ci batt gi la la am lu ko dikkal xamal ko ni lii nga dégg bi nga ci am ndam moo tax mu ne alhamdulilahi rabil alamin mu woote màggal gi màggal gi nag lenn lu dul nañu santale yàlla Cheikh Ahmadou Bamba d'accord loolu la nañu santale yàlla maam Cheikh Ahmadou Bamba ca ndamam li mu am. di di am mbégte ci résumé bi mais tey euh, gis nañ ne fi mu toll nii nit ñi ñu ngi def wàccaay màggal. wàccaay màggal ab ab ab jullit. Mm. tey bu ñu nee màggal que ça mag màggal gàmm. ban mm. wàccaay la war a am bu bokkut ak wàccaay bi nga xam ne nit ñi moom lañ parce que da ngay gis ne fi nit buy dem màggal day si napp. Mm-hmm. préparé wu. Mm-hmm. ko réew. Mm-hmm. nan nit nan lay waajee nan lay waajee màggal. waaw loolu loolu daanaka daanaka yëf yi yëf yi Sénégal la yëf nit ku ñuul la. Euh, mooy wanewu wanewu ne maa ngi ci jumaa ji maa ngi ci bërëb sàngam maa ngi ci bërëb sàngam. waaw ñu xam ni ki ñuy màggalil bésam bi. ku liggéeyal boromam la. waaw man Cheikhul Khadim manu xam ni. moom ku liggéeyal boromam la bu mu am lii mu am tey. kon booy jóg di dem ci bésu maam Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ni. bésub yor-yor la mu am ci ndam lu kenn dul jeex ci àddina. Mhm. demee ci ak dal. Mhm. demee ci ak teggin. Mhm. demee ci ak yar. waaye demee ci ak ngëm-ngëm. ci ak ngëm ndax Touba mooy garabu ndajjan téef gu mag gi ci àjjana. baatu Touba maam Cheikh Ahmad Bamba mi ngi ko benn garab la gu mag gu rëy gu nekk biir aljana. garab googee la tuddee dëkkam bi muy Touba. kon lu kaar booy jub di màggali. Hmm. sinab geek yow mi may seetaan sinab geek euh, vidéo geek ah bu mënee ñàkk de moo gën. d'accord ah, te sax maa ngi dégg ci ci euh, ci appel bi sëriñ ba Bachir di wax ni yooyu yëpp nañ ko tegg na ci suuf. Hmm. taalibe nag day sagal sëriñam. wala hmm. ne lii bëgguma ko ci nangam. bàyyil léegi ci kaw loolu dañuy gis ne nit ñi bu ñuy dem ci ci jumaa ji jàpp ja war dañ ko def surtout si jigéen ñi muy góor lu ñu jàpp ñu yàkkamti dañ dugg. ba ziar barab ba dem mais nit tey booy dugg ci barab di ziar sëñ bi. Mm-hmm. nan nga war a mën a duggee ci barab ak nan nga mën a war a duggee si jàkka. teggin mm-hmm. teggin. Mm-hmm. gis nga tey jii damaa jàpp ni bu la Macky Sall woon rendez-vous nga war faa dem. di nga am di nga cool col gu baax defaru ba rafet soog faa dem. laal parfum laal parfum defaru. yow nag fi nga jëm sang la. am Cheikh Ahmadou Bamba sang la. léegi yomal qiyaama. dana jël mbooleem njabootam ànd ak ñoom tum tum tum tumi dugg biir aljana ndax noonu loolu la leen dikk mm-hmm. kon nag booy dem ci bërëbam bu sell booba bërëbam bu teey booba bërëbam bu yàq bu bu sakkan booba mm-hmm. bërëbam booba nga xam ni euh, fajukaayu xaajo la waaye mm-hmm. waaye waaye mama africa dem ceeg dal dem ceeg teggin waaye na nga am cellte na nga am njàpp na nga na nga na nga am set ge parce que tegg lu ci am solo la oustaz am na ñoo xam ne mënuñu jàpp de doo leen dimbali waaw kooku nekkagul julli démb rek man koy wax sama benn jigéen naan ko jullikat bu dul julli ab yéeféer la jullikat koñ ne jullit la waaw te du julli ab yéeféer la ab yéeféer la waaw loolu moom nañ ko xam gis nga maam Cheikh Ahmadou Bamba daf ko wax ci tasawatu sixaar dafa wax ni ku dul julli mm-hmm. bu faatoo buñ ko denc ci armeer jullit ñi buñ demee ba ko fay denc bu mu féete penku bu ñu demee ba ko fay dencit nañ ko falax comme ni ñu suulee célibataire falax ko la moo tax ma taamu célibataire <laughs> comme yow la waaw bu ñu demee ba ko fay suul nañ ko nañ ko falax jàmm laa woote daa daa di koy daa di koy daa di koy euh, kii rek bàkk fu dem bàkk fu dem parce que la la ko yàlla sant defu ko ah. maam Cheikh Khadim nag dafa nekk ci li ko yàlla sant ba xëy wuy dëgg la léegi oustaz ñi nga xamante ni tey jii dañuy dem Touba ndax bari nañ da ngay gis ku paas xotti ay yére jël pen lépp jënd saak lépp daal day nugg. Mm. mais bu demee ba Touba du egg sax sa jumaa ja. dëgg léegi nag oustaz ñiy dem ba Touba te duñ dem jumaa ja siyaar ñooñu loo leen di wax. sorti lañ dem. ah <laughs> sorti waaw. sorti la caaroy assur bi lañ dem. <laughs> caaroy lañ dem. sorti lañ dem sorti dama ko bëgg nag. maanaam euh, maa ngi dem Touba. Mm-hmm. lan ma la yóbbu damay màggali. Mm-hmm. kon màggali. te boo deful màggal gi moog zéro ñooy. moog zéro yeeg. Mm-hmm. jóge nga fi dem tubaab ba ñëw maanaam sañse gi nag lu mën a nekk la waaw sañse gi moom lu mën a nekk la mm-hmm. ndax ku jëm ci yàlla mm-hmm. jëm ci daa yàlla yi sañseel ba rafet nag wax dëgg yàlla mm-hmm. ndax ma Africa tey bu la Sanu Jaay oowoon balaa ngay dem jënd sañse ba jekk sa nijaay maanaam soo foo bëgg a wax fépp. maanaam nijaayam moom wala. comprendre lu jarul leeral léegi ah, maanaam booy def oustaz dafa baax xam nga mbokku téléspectateur dafay baax nit ki tamit lépp looy wax ñu mun ko leeral moom nijaayam. maanaam man mii tey bu ma ko oowoon. yow buy ñëw. dama sañ sama rafet. oustaz sa utum ñetteel taxaw na de. wasalaam bu ko defee nag ñu xam ni. Uh-huh. Touba lañ jëm. Uh-huh. jëmuñu sorti. dëgg la jëmuñu ci caaxaan. Uh-huh. axankay moom nag dafa ni. ku ma lebal ku ma ku ma euh, ginaar ma fay lam xar mm-hmm. te ku ne xam ne ni Cheikh baam ba daaw ku ko joxoon ginaar mm-hmm. ren di ko jox giléem mm-hmm. ndax def na du def na def na mbir nag ci màggalam gi parce que nit ñi dañ naan këfal na ci de màggal gi la loo ci def rek jàppal na moom dina la ko fay suñu borom duubal lay doon loo ci def rek dina nekk duubalam waaw te nag ñu xam ni Cheikhil Khadim amul beneen bés bu dul bii ndax moom la sant la yàlla. ci ci kaw loolu euh, comme li ñu port parole bi wax rek na képp koo xam ne ne ab murit nga dafa fas ñëw ci màggal gi na nga bàyyi sinab bi. Mhm. jigéen ñi la nga xam ne ne moom lañ santaane sa jàkk ca. ngalawaay dañ ko sàmm que parce que important en mhm. nit ki nga nekk ci mbir nit ñu tere la dara. ñu la ñu la ciy toroxal dafa rafetul. Ah, léegi sa gis naa ne mees bu bees boobu mees bu bàyyi faal boobu noonu. Mhm. ñu nga xale ñi rasta bi moom lañ jël. mais tamit dafa am yoo xam ne ne euh, rafetul. moom daal moom daal euh, Lukaar waaw. taalibe. Mhm. day seetal sëriñam. ah man de sama sëriñ lu kaar mhm. lii la bëgg. Mhm. te la mu bëgg neex na yàlla. maa mel noonu. parce que bu leen lu lay teer loo neexut yàlla. li la tere mm. mooy na nga sàmm mm. yow ku jigéen ki mm. na nga col col gu jot na nga col col gu na nga na nga nga na nga muur sa yaram na nga muur sa bopp mais loolu la diine sant benn question rek moo ma des tey oustaz bu ñu noonu euh, Serigne Touba ak Seydina Mohamed lan nga ñu ci mën wax man boobu laay boobu laay tëjee amul benn diggante bu dox ci diggante boobu mm-hmm. Cheikh al Khadim ak Seydina Mohamed ma ni amul benn diggante bu dox ci diggante boobu mm-hmm. amul benn diggante bu dox ci diggante Cheikh Al Khadim nag ak yoon Cheikh Muhammad mm-hmm. ndax liggéeyal na ko ba doon jaamam mm-hmm. xaadimul xadim mm-hmm. xaadimul rasul amul foo koy dégg ci àddina ku dul ca moom te baatu xitma mooy kii liggéeyal baatu xitma mooy la kii liggéeyal jaam d'accord kon kon kon boo xoolee maam Cheikh maam Cheikh Ahmad Bamba dundam gépp daf ko tàgg yonent bi julli ko ci moom dewoon na sitra bi mat xëy sitt maanaam dundam yëpp daf ko visionné jëmee ko ci yoon Thiel Mouhamad. gàttam gi le missionnaire xam nga missionnaire. wa akmalul wara xalqan wa xuluqan zahar. maanaam maanaam Thiel Mouhamad Cheikh Ahmad Bamba daf ko ne mooy kii mat te gën a mat li mat. libaana kawnil Moustapha Raïsa li ku man xat fojula ruusa. daa mel ne laal naa la de. waaw man yonent bi amee daaneel. te ñu dégg. waaw moo tax a mag lii. yonent bi amee daaneel nag. maanaam maam Cheikh Al Khadim dafa jàkkaarloog yonent bi. naan wa rasulun wa xalilun wa huwa habibun wa imaamun wa dalil. di ko tagg ay façon ñi tagg yu neex te teey. ana yàlla fayal ñu ko. boo demee ci jazbul xulub dem ci mawaahibu mm. dem ci raaya dem ci dem ci dem ci euh, euh, mafatixul mafatixul bishr mm. dem ci téere yooya dañ ci gis ni yéen Cheikh Ahmad Bamba wax na lu ne yéen Cheikh Mahamad kon fi mu toll nii daal Cheikh Ahmadou Bamba daal moom daal kii di yonent bi tagg na ko tagg yi am doole façon ñu tagg bu ne taggee na ko Cheikh al Xadim na bind na ci yonent bi ba daaxam jeex mm. mu xotti yaramam capp ci deretam bind ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kan kooka ku ko bëgg da ngay bëgg yonent bi maman man day moo tax mu waxoon karamatul xat bi yem sama yaram bi isna bi naan taj taj moo tax mu wax ni man kat sama sama sama sama maanaam julliti géej bi du kéemtaan xam nga luy kéemtaanam moom maam Cheikh Khadim lim bind ci yonent bi alayhi salaam macha allah ndax moo ko wax de moo ne sama kéemtaan mooy samay xasaayit kon nag euh, ku ko bëgg da ngay bëgg yonent bi ndax moom la ñu bëggloo ku bëgg da ngay bëgg yonent bi ndax moom lañu ñu soppaloo moom ndax moom it moom it la lañu lañu lañu la ñu jubal ndax tabarakallahu jamono ji foo toll foo toll ci réew mi yaa ngi dégg ñuy safar di tagg yonent yàlla Muhammad ci mbind maam Cheikh Ahmad Bambay loolu amul fudul Sénégal moo tax ma koy tooñ sama benn waaye Xaadim Bousso mu toll aalu na de naan ko gi ñëw na ah, ah. ngeen bëgg ñoo sonal ak seen tante ak seen bâche yi lu ma léegi moo jeex ba ngeen di fi yéen tijaan yi <laughs> waaw kon kon ñu sant yàlla waaw te waaj ko nag insha allahu taala xam bëgg dara ci yonent bi ah. mën nga ko jaar Cheikh al Xaadim li nga ci am ba doyale insha allah ah donc mi ngi noonu may remercier oustaz bu baax a baax ndax nee naa ah, jotaayam du ma ko doyal fi mu toll nii booy xool sax ah, xadar gi dafa daal di dugg ba sax bëggul dem waaye nag di nga dem ndax émission bi dafa jeex oustaz ah, donc damay bàyyi Lukaar mu tàggatoog internet yi doon seetaan waaye nag ah Lukaar bàyyi ba ma jox la parole man kay isa fi mu toll nii damaa damaa yëg mbégte tàng donc mi ngi noonu may nuyuwaat rek samay partenaire bu baax a baax ku si mel ak Aquaterra donc numéro bi dina dugg xam naa ni màggal gi di ngeen ko soxla lool mm-hmm. waaye tamit tamit euh, épices euh, secret tamit euh, dina leen gunge si seen i waañ durant màggal bi yëpp. Mm-hmm. te doo leen sonn dëbb bi di leen sonal donc épices tamit numéro ma ngi jàll si suuf. waaye boulangerie la Kajoor aussi ah numéro baa ngi ñëw waaw ndax ñoom it seen petit déjeuner yi xam naa bu leen ko jëndee yóbbu ko moom ah, di ndékki ndékki lu leex waaw mu ngi noonu te ñoom dañoo fas yéene dem màggal Touba dem màggal Touba dañuy accompagner ah, kon jeex na ah, donc waa waa waa kii pâtisserie Euh, boulangerie pâtisserie la Kajoor euh, ñu ngi Touba donc numéro bi dina dugg. Mm. Euh, ku bëgg say pâtissier yu neex rek ngeen oo leen ñu livré la à temps donc tamit may remercier bu baax a baax au régal de Kumba moom it dugg si na si kër gi maa ngi koy nuyu de passage bu mm. baax. donc damay bàyyi lu Lucar rek mu daal di tàggatoo internet yu ñu doon seetaan. ayca ak maa mun a tàggoo mais balaa may tàggoo Lamine dama bëgg nga faale ma tuuti si yére bi nga xam ne ne moom la ma Ardo collection jox. <laughs> waaw waaw Ardo moom taalibe sëñ Saliou boobu. Eh, doo bàyyi doomam da ko jël mhm. tuddee ko ki nga xam ne mooy sëñ Saliou euh, nabu tamit di jabaram maa ngi koy jaajëfal parce que yére bi nii fi mu toll nii euh, nii ma ci mel nii euh, moom ci nabu di soxnaam bul wax jabaram nabu di soxnaam waaw oustaz da ci baax nabu di soxnaam léegi mm, ci kaw comme yéen ñi nga xam ne yéen bëgg ci yére parce que instant yi ay prêt à porter la déjà boo ko woowee rek moom lii problème moom mooy que moom si jëm boobu moom day mel ne dalay sentir ne yaa ngi ñëw boo ñëwee da ngay fekk sa taay mu tegu. mu tegu ah loolu rek ko man. da ngay ñëw ak boo gàttee. Ah. Mhm. comme oustaz Ndiol. Mhm. sa taay mu ngi foofu tegu. donc numéro am nekk. 77. Euh, dina jàll 547 67 02. di jaajëfal mbokk internet yi may woowaale Ardo rek nekk li nga ñëwal euh, Lukaar rafet na waaye tamit Mama Africa boo ko génnee euh, marinière bu baax it du du du damay def lu dul kontaan daal. oustaz foo jëm. ak oustaz génn ci ci loo bi ay ah, bu ko defee ñu ngi leen nga solal leen fi mu toll biir kër gi nga leen di solal chaque jeudi donc daal woo na la Mama Africa mm. woo la Jeng Saala woo na la ak caméraman yi sax woo nañ la ci màggal Touba gi donc nag mu ngoog jaajëf ah donc mi ngi noonu ma lay remercier bu baax a baax Lucar nee naa chaque jour rek euh, immense plaisir laay am bokk ak yow li nga xamante ni mooy plateau bi ah damay bàyyi oustaz rek euh, mu daal di nuyoog internet mu tàggatoo internet yu ñu doon seetaan. tàggatoo tuuti rek. day nekk tàggoo lu tàggoo. <laughs> yal na yàlla fayal ñu mag ñi. na yàlla fayal ñu mag surtout loolu. yal na yàlla fayal ñu mag ñi. Sénégal tey ni mu mel bu dul woon nag Cheikh Ahmadou Bamba. Mm-hmm. Seydi El Hadji Malick mhm. Seydina Limaam maam mhm. Abdoulaye Niass mag ñooña mhm. kon tey ay Mendy la ñuy tuddoo ay Honorou ay Jean Pierre ah, ay ay akaja yu kenn xamul <laughs> waaye mag ñooña tey ñooñu couvrir dimbilu ñu tey nii ñu mel tey ñu mel ko ñu mel ko na yàlla fayal ñu leen gën gi pay waaye di di di ñaanalaale sama waaja Mawlaay laay Cheikh Alhaaji Abdou la 14 septembre bii la làkkoon 97 boobu xam naa yaay seen juddoogul ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yéegee ko ca barzaaku Cheikh Sidi Ahmad Tidiane Chérifil Fatima Hasan yàlla defal ko jàmm waaye Locar ma ne tey gis nga dama fël ci ay verre gis ngeen yi ma daan sol tey soppeeku lii lañuy wax lugu tey yu yëpp daanaka tey maa ngi génnee ci jibi jonn lunette Daaru Salaam nekk fii ci Kër Massar ma ni damay def ni ngeen def rek nekk nekk fii ci Kër Massar Daaru Salaam ku bëgg ay verre yoo xam ni boo solee mu gis boo solul mu gis demal ci jibi lunettes ndax moom ay lunettes yu amul fenn lay jaay demal ci moom mu ngi nekk Daaru Salaam euh, fii ci Kër Massar numéro bi 77 036 33 88. nee na jëflante ak yow ci ay verres yu rafet incha allahu taala. macha allah waaye damay bañ ne daloon waaja daaw dal ma ci màggal gi ren. Mm-hmm. waaja day màggali ñëw ba Diourbel. circulation bi xat lool ba kenn amul foo jaar. Mm-hmm. sunu chauffeur bu ne day teggi <laughs> moom daal day teggi ci tegg ba génnee buntu Pikine. <laughs> te loolu laay bi. chauffeur bi. mooy teggi. di teggi ba génne buntu bi. xam nga fu mu la jombel la kii woo. lay duggee asalaamaaleykum wa bu ko defee rek. maman bu si dolli. oustaz maa ko ñaan bu si <laughs> bu ko defee rek. Ah, ma internet yëpp. di wax tamit Cheikh ma solal sa kër Massar. Euh, donc may remercier Cheikh bu baax a baax euh, Kër Massar la ne Cheikh Couture moo ma génne si robe bi tey ma koy remercier waaye du ma fàtte NF euh, Beauty Beauty man oustaz yóbbu na sama xel mi NF Beauty Gendal près de Edicom ah muy xale bu mën maquillage vraiment tey moo génne si sama kanam defar ko ba mu yànj ah, numéro téléphone bi di 76 927 70 89 ah donc woo leen ko elle se déplace boo ko woowee mu déplacé wu ñëw ba sa kër defaral la sa kanam ba mu yaan ji coiffure cérémonie et da koy def ah, di souhaiter un très bon anniversaire à Assane sunu technicien boobu nga xamante ni macha allah ah serviable disponible di ñu cadrer lu rafet di ko souhaiter un très bon anniversaire longue vie prospérité et beaucoup de bonheur ah yàlla defal ko jàmm may ko nag soxna bu nu mu gën a gaawee incha allah yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ah donc di Ciss euh, toute l'équipe de Keur Ndanane TV vous vous souhaite un bon Magal donc à très bientôt et merci de nous avoir suivis.